solennellement mu clair sur le plateau de Kër Jaraaf nga ne vous da nga bugg ngemb ki nga xamante ne moom mooy sa technicien yi aussi maa ngi leen di nuyu bu baax askan bi bu ngeen ko naree def jërëjëf ngeen ngeen ko nar a defal xam amoon na ay temps xawoon na am tuuti ay jegeñaale ak euh, Ousmane Sonko et autres parce que on se rappelle en ba ñu waree tenir sax conférence de presse bi Idrissa Seck lañ jiital est-ce que dafa mën a waxaat ne peut mun ngeen retrouver wu ak Yewwi dans l'opposition bon dans un premier temps euh, ñun ay libéraux lañu donc dañuy wax ne les oiseaux de même plumage vont ensemble li ñuy njëkk gën a bëgg mooy képp ku bokk ak gis-gis ànd ak yow. comme le PDS. waaw ku bokk ku bokk gis-gis rek te bëgg réew mi te doo caaxaan réew mi te doo foyee réew mi parce que Sénégal daf ñu ñor trop Sénégal daf ñu ñor trop dafa ñor trop président Idrissa li ñuy wax ci Sénégal bu wéetee. Sénégal yu bëri xamuñu ko nee na Sénégal taxaw moo gën moom avenir am taxaw ñàkk avenir am carrière politique am yàqu te Sénégal dina fi moo ko gën a lu mu mën a am. kon man sama wàll ba moom ngemb naa ko ba pare parce que moo tax ma ànd ak kan waaye man ba Lamine moom ngemb naa ko ba pare depuis 2012. mais à défaut de vos frères libéraux parce que yaa ngi defal maa ngi ñëw bu loolu weesoo am na lu ñu bokk loo xamante ne politi homme politique yëpp ñoo ko war a bokk muy démocratie képp kuy démocrate te bëgg réew mi. dinañ tàllal loxo bu soobee yàlla la ca des mooy képp kuy ku ku ku républicain républicain mooy maanaam bëgg a jël nguur gi ci charte réew mi maanaam teg ko ci élection teg ko ci campagne teg ko ci génn ay xalaat mais bëgg ko teg ci teg doole xam nga yàq moo gën a gaaw defar. Mhm. boo xoolee dox ci réew mi nii lépp c'est organisé yàq ko moo gën a gaaw fi mu ne boo amoon deux cent personnes ci dëkk ba rek ñu ne dëkk bi Sénégal tas na non réew mi tase noonu. réew réewul aset noonu wala Ukraine soxna si depuis deux ans Russie ñu ngi bombardé bombardé te ba Ukraine ñu ngi fa ba tey. y a une vie toujours là. y a une vie yow mënoo ñëw de daal di baale baare ñetti mbedd ñeenti mbedd juróom benn mbedd taal ay pono mu saxaar ñu ko nga ne Sénégal tas na génn leen non ça marche pas comme ça. d' alors la toute dernière question <laughs> parce que waxtu yi jeex na. Euh, à défaut du PDS à défaut de vos frères libéraux naka ngeen nar a taataanee baatu askan xanaa wax leen dëgg rek. parce que yéen leen yéenee gindi ndax nit ñi sonn nañu jaaxle nañu ndax politiciens yi et puis ñoom ñun ñëpp nag politiciens yi amee nañu réew mi te moomu ñu nag réew mi dama la ci wax sànq maa nañu ko liggéeyoon ci baatin ak saayir ba tey mu egg fii ay politiciens jug rek fëgg dënn ku nekk fëgg dënn bëgg a amee nit ñi lekkatuñu naanatuñu fajootuñu ku nekk tiit bëkk démb ñaari fañe Ndakaaru yëpp tëj mbedd yi vide pour pour volonté wu ñaar ñetti nit ñeenti nit mën doon nag muy pouvoir muy opposition loolu teguñu ko fenn ndax moomuñu nit donc ñun li ñu bëgg mooy wax nañu dëgg te teg ko ci yoon respecter charte réew mi respecter nit ñi respecter force de sécurité yi respecter justice bi ndax justice bi ñoom ñooy organiser élection yi compter xob yi ne kii yee gagné takkal ko raaya mu def prestation de serment force de sécurité yi ñoom ñooy encadré pouvoir bu fi mënti toog ñu lay encadré mais munoo boole ñëpp ci benn saak saaga ñëpp xas ñëpp ba pare bëgg a yorum réew loolu ça ne marche pas comme ça ñun ci loolu ñuy woote bu soobee yàlla bu respecter état respecter force de sécurité yi mhm. respecter justice bi respecter sénégalais yi kenn ku ci nekk ci mbedd mi nit warul xëy dem jaay ñun ñuy campagne ñàkk koo tere dem jaay ba du am dépense bi mu yóbbu këram yooyu lañu la bëgg a defaat ci bopp sénégalais ba ñu xam ne op homme politique yëpp bokk ñu nekk ay nit ñu baaxul am na ñu baax ñoo xam ne bëgg nañu réew mi respecté nañu réew mi ci loolu la ñuy woote bu soobee yàlla